décennale de 2023 à 2033 750 milliards yoo xam ni boo demee tey banlieue Dakar li am ren ci ndox mi fii ci Ndakaaru kenn mësu koo gis lii say Seydina Limamou Lay monsieur le premier ministre je n'ai rien contre les lions Abdoulaye Sow 6 milliards yi ñu wax ne moom lañ dépensé six milliards mooy budget wu lycée Seydina Limamou Lay qui a 320 enseignants 130 agents Euh, mille deux cent élèves il risque ruine ñu ngi waaj a daanu ñun foofu lañ dëkk li ñuy wax dañ kaa xam yaakaar naa ne kon priorité sur priorité njàng mi dara gënu koo nekk priorité ñu ñëw na ci lu jëm ci wàllum groupe des médias cinq cent quatre-vingts pères de famille yu fa ne te boo sàgganee ñoom ñëpp chômage la ñu jëm te nee ngeen président Macky sal moom mooy roi wu social social boo xam ne moom muy créer ay chômeur moom la Macky sal di créer te loolu war nañ ci wax lu jëm ci walum monsieur le premier ministre fu que neex moy am sécurité fu neex du am sécurité ñu ñëw ci walum sécurité. ngay wax wax nga Caroline sécurité. Euh, wax nga wax su Macky Sall ñu am Nous association des maires day tëddee ñaxanaay té def deful am nice képp kuy maire opposant mu taxaw ci yow am esprit de dépassement

ñun loolu lañ bëgg ngeen wàccoo ak moom te wax tamit lu jëm ci wàllu dundinu askan wi nee ngeen wàññi ngeen dund gi dund goo xam ni ban côté moo wàññeeku ban côté moo wàññeeku loolu la ñuy laajte beneen bi nag moom mooy bu leen fàtte article vingt sept bi gis naa ne sa discours bi da nga koo tëb xam naa bëggoo cee dugg parce que pour des raisons ko tout le ko ne mais Macky Sall na xam ne deux mille vingt quatre na takk ay bagaasam. la parole est à notre collègue.